André c'est pas c'est pas Vermin eh, mon grand Fara. Guèye. <laughs> Fara ça alhamdulilah. am na lu may njëkk a mooy dinaa la namm trop. maa raw maa la raw waaw gis nga gis nga gis nga gis nga. man tey tey tey laa wóore sax. maa ngeen wóore tey. seetu village bi moo gis weer bi quoi moo tax ab bi ñu ma woowee man ci laa ci laa arrêté. kon de Sénégal ba tey ñu si ñaari korite ba tey. <laughs> waaye nag suba suba suba laay korite. non mais dina ma neex. non dina ma neex vraiment xaru baax nga. waaw baax nga mais ça bi nag sama ceeb bi kon nu may def ak moom. waaw ceeb bi moom xam naa ne moom mi ngi dépendre ci madame rek pour ceeb bi ñëw quoi. farat koy créé. mais bu koor jeexee xanaa añ am na. waa père yow bu bu bu bu bu ceeb amul woon yow nooy def. nakaaree <laughs> man su ma la gisee ngay lekk ceeb ba ni hmm, sëgg boobu noonu. waaw waaw waaw. mais sax soo déggee ma foofu foofu su ma toll foofu. dafa fekk ceeb bi may duggee noo xam ne oh. xoolal li mu <laughs> mais booy ndaw si mën na ceeb. moom mën na ceeb mën na ceeb trop. mais ana ana sax doom yi. c'est vrai fàttali nga ma sax. d'accord mais nag xaw a yàgg aussi. sa woon nii allo. ah fa doon papa ñu ngi ñëw ñu ngi nii si yoon bi. bàjjaat bi ñu ngi rey ñu ngi rey waaw waaw ñu maa leen di xaar maa leen di xaar. waaw baax na ñu ngi ñëw. ñoom waaw moom génn sax muy woote. mais nag il faut nga taxaw ci affaire bi. parce que ceeb bi mënoo ko bàyyi noonu. non yow Père yow foog ma lay andil nga xam ne dama lay mbalak rek di la tooñ mais xam nga ne yow moom foog ma lay andil ceeb mais yow bu ceeb amul woon nooy def. Ah, créé ko. créé ceeb. <laughs> kon yow risaatal moo doon dëgg. <laughs> daa toll loolu. ok jërëjëf. ñu ngi doon laaj ak sëriñ. ok. ça va. salaamaaleykum. Paa. waaw ça va. mais ni yàgg ngeen rek. ma da ngeen yàgg la. waaw ñu ngi dem fii rek. marché c'est normal heure bi ñëpp a préparé ko. mais c'est sûr que jàddu leen fenn. nga leen jàdd. léegi nag ma naan jàddu leen fenn téléphone bi nga xam ne xataa yi. na ngeen def yéen a ci waajtaay. waaw Fara yow teel ngaa ñëw di Fara. waaw xam nga tey moom man tey laa wóoree quoi. ah tey nga wóoree. tey lañ wóoree na léegi. te moom mii moo ñu gën a yàggal sa taay fiin bi. ndeka daal monsieur Guèye ñaw ba dakaa ëpp. mesure avant ak après. papa koor gi la moo tax. asaga bee génn. neexoon jàppale waaw oui ma ñaari korité ngay def man. waaw waaw xam nga rek Sénégal dañu am un ak deux. man de maa ngi kii sax maa ngi am benn tissu mais xam naa du fi xaj de xat na de. waaw saa yi xat na quoi xam naa après korité bi ma xaw a. waaw nga ñëwal ma ko waaw man ko. dafa ëpp xam naa koor gi. ah koor la waaw dama maigrir da nga ko pet quoi waaw ah d'accord bi ak kii dafa xaw a large daal. donc ci poitrine bi manche bi ak taille bi. ko. yow da ngay sàcc plaisir. Hmm? comment. ma ni da ngay sàcc plaisir. defal naa ko defal naa ko. waaw waaw pour que escarté. liggéey yow tamit du nii da yow yow kii jabare kilifa la ah, nga jël sa centimètre bi fu ne nga awale ko ci moom fu ne ah ah waxuma la dara nga jël sa loxo bi lal ci xanaa xamoo man mi ancien tailleur laa bi may laataa def commerce dama daan ñëw xam naa ni ñu jële mesure mesure lu nekk fu ne nga dawal fa sa gi góor gi man su ma liggéey def góor kii suma cliente la Cheikh moom Kole la ma ñëw di ko jël ko ñëw ëpp ma ñëw ma ñëw jël ko mais mais amul leen ñun ñun peut-être sa jamono yow nooy mais ñun suñu jamono dinañ jël mesure man nag bon franchement li moo tax bëgguma ñëw dépassé wu jël ay mesure quoi parce que yenn affaire yi lay bañ quoi yenn affaire yi moom kii moom franchement bon. Guèye lii kenn du ko def. kii jàmbur la day daan dooleem kese di liggéey. voilà am bàyyi mu sedd ah, na tàng na bu mu sedd man ngay jéem a menace yow nga bàyyi mu sedd seen seen terme yooyu seen terme yooyu seen terme yooyu naan bàyyi mu sedd boo leen boo leen réglé wul rek dinañ dinañ leen kii. ayca suba nu ñuy def ci korite gi. que xool bi daa bëri sax gàddu saak bi téye saak bi téye saak bi téye saak bi nag Assane fi mu ne damaa sonn de nan la.